mbokk yi nuyu naa Le euh, gouvernement du Sénégal de ne ci cadre programme euh, xëyu ndaw ñi créé 66 000 emplois 66 243 emplois monsieur le ministre est-ce que xam nga ni depuis euh, août 2021 mu ngi jeex août 2023 ñetti avons ñoo des jox nañ ay contrat ndaw signé ñu jëlaat ko seen loxo ba tey kenn delloowu leen ko lu tax bu dee état du Sénégal mooy doxalee nii ak say employé ak ay employé wam kon yeneen patron yi nekk ci Sénégal naka la ñuy doxalee monsieur le ministre régulièrement ñi nga xam ne ñoo nekk ci programme xëyu ndaw ñi dañuy toog benn weer ñaari weer ñetti weer te duñu fayeeku ndax lan te fekk ne boobu amul benn député bu payoram tardé amul benn ministre boo xam ne payooram mu ngi tardé monsieur le ministre ñi ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci programme xëy yu ndaw ñi dañ leen di omettre maanaam dañ leen di ñàkk fay waaye ñàkk fay boo xam ne omission la juróom-ñetti weer ba fukki weer duñu am fuñ ko jooytoo et pourtant yow mosoo toog huit mois te kenn fayu la man député du ma toog huit mois te kenn fayuma ma bu ñu demee di kaas ñu rétablir leen waaye li ñu leen amel ci arrière kenn du kenn du leen ko fay mu mel ni kon dafa am benn système ci programme xëyu ndaw ñi boo xam ne dafa mel ni dañuy sàcc ndaw ñi nekkatul xëyu ndaw ñi waaye iñaane ndaw ñi la nekkatul xëyu ndaw ñi waaye noot ndaw ñi la rusuñu sax seen quatre-vingt-dix mille francs par mois ñu koy xëccoog ñoom monsieur le ministre est-ce que dégg nga ne am na ay samba surabali yoo xam ne dañuy dajale ay carte d'identité ñëw déposer ko waaye ndaw yooyu duñu mës a laal qui quatre carte d'identité bi quatre francs fois cent fois fois 20 ou monsieur le ministre Macky Sall Je Macky complot Ousmane Sonko que j'ai viol pour amul Mané, Macky Sall man di wax Ousmane Sonko monsieur le ministre monsieur le ministre euh, ci la police dafa am ay policiers yo xamné dafa am ay policiers yo xamné ñu ngi francs par mois dama japp né amul ben policier bu ñu wara a fay 90.000 francs par mois sous prétexte que sous prétexte que ay policiers la yo xamné nekk ci programme xeyu ndaw ñi. Macky Sall mo dak fen mi complot Ousmane Sonko. Euh, monsieur le ministre, vous avez la parole. Pape Malindo. Monsieur le ministre, vous avez la, la parole. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président.